torlu à des moments historiques moment historique ami Cheikh Antonio yéen i safoo di seetaan les patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar li gën a fës ci xibaar yi nanga nga ñu dooree ko li nga xam ne moom moo di président Macky Sall ak li nga xamante ne moo di lu doy li nga xamante ne moom moo xew ci Babacar Touré ak Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moom moo di Dame Mbodj ba tax nag ñu commencé ko ci euh, ki nga xamante ne moom moo di président euh, Macky Sall gannaaw nag bu muy def benn inauguration boo xam ne chambre des métiers ba tax nag ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall dafa regroupé ay jeunes yu bëri bëri bëri kenn ku ne mu fay la cinq mille francs pour kat nga teewee li nga xamante ne moom moo di journée inauguration boobu mu doon loo xamante ne lu doy doy waar la ba tax nag mbooloo mi bëri woon na fa trop mais ku nekk nag da ko jox li nga xamante ne moom moo di cinq mille dégg nga yaakaar naa loolu ndax li nga xamante ne moo di boppam la ba tax si doon nag gannaaw nag bu mu porté plainte ki nga moom moo di euh, Dame Mbodj ak euh, ki nga xamante ne moom moo di Gabriel Kane gannaaw bu ñu defee seen euh, wedd yooyu nag ki nga xam ne moo di si doon du dëggal na plainte am ba keroog sax la ko yóbbu tey nag ki nga xam ne moom moo di Dame ndax mu ngi see am problème yoo xamante pourtant Dame Mbodj état bi da ko yàgg rëbb tey jii nag si ko amee occasion ba Sitor Ndour daal di ko porter plainte ndax loolu du am ay problème ki nga xamante ni moom moo di Dame Mbodj ak Gabriel Kane ki nga xamante ni moom moo di Babacar Touré nag gannaaw démb dañ koy yóbboon urgence ndax dafa feebaroon bu baax a baax a baax a baax te buñ koy jàpp dara dara dara ko lu koy firndeel mooy lan avant buñ koy jàpp sax defoon na benn live mu doon loo xam ne lu doy la en tout cas ak lu ko si mënta fekk rek nañ xam ne ki nga xam ne moo di président Macky Sall moo doon responsable parce que liñ koy toppee yëpp andi na ay preuve yu leer naññi teg ko li nga xam ne moom moo di table bi juge bi ne mukk du daal ndax lan ki nga xamante ne moom moo di Babacar Touré dañ koy toppee ay charge yu bëri bëri bëri loolu nekk loo xam ne lu doy waar la ba tax nag lépp loo xam ne daal na fi xewaal rek dina leen ko tegtal dinañ ko war faram nu mu gën a leeree si njëkk ak si teraanga di leen ñaan la ngeen gën di wéy di abonné ñi chaîne bii lay Patriote TV leen wax ne moo di seen mbégte mooy si ñu bànne